jërë ngeen jëf di rafetlu ànd bi Equivox TV ginnaaw bi ñu leen dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu koy dooree rek woppub coronavirus tey ci àllarba bi ci 1698 tests yi ñu jot a réalisé 280 ñoo ci jot a positif ci 280 yooyu rek ñu ci am 193 cas communautaire 87 cas contact 9 décès ak 255 yoo xam ne rek ñu ngi ci bërëbu fajukaay. lu yees lu jëm rek ci wàllum lii di couvre fa bi ginnaaw rek bañ a jeexalee juróom-ñett fan yi rek kii di Antoine Félix Diome daal di nag génnee communiqué bu bees ne ngeen ni démb xam leen rek yokkaat nañ ci lu tolloo go weer. fii ci région Dakar ak cees ci noonu nag lépp rek loo xam ne dafay indi euh, ndaje maanaam ceeti yegg ngénte yi daal nañ ko tere ak ndaje yi nga xam ne dalu am ci plage yi ci noonu nag ki nga xam ne moo di ministre de l'intérieur xam leen na ne rek ku dëppoowul ak li nga xam ne rek mooy euh, loi bi nga xam ne rek nañ ko rek ay daan yu métti mën na la fekk ci boobu lépp yi amoon nag fële ca tribunal bu dakaar la ñu nemmeeku barki démb ci altine bi fële ca université Cheikh joob Diop de la fa xew nag moo di ab jàngalekat buy wuyoo ci Matar Fall moo daal rek euh, daanu fa mu taxawoon rek ca boutique ba maanaam di jënd lum lekk ba mu daanoo nag dafa ñàkk bàkkanam ci saa si li waral bile mbir nag kenn xamagu ko mu doon loo xam ne nag nemmeeku nañ ko ci fan yi ñu weesu fii ci senegal tombeek nag li nga xam ne moo di feebaru coronavirus moo ko indi wala déed askan wi ñu ngi koy laam-laamee. ba tey rek ñuy àddu ci génn àdduna Mouhamed Cissé ba ñu faatoon fële rek ca kawoon Kaolack ki defoon bile ñaawteef ama dell ginnaaw bu mu génnee àdduna ne ni barki démb nag bi ko policier yi di daqee rek ca biir foofu ñu ko tojoon rek mu daal di mbëkk miir bi ngir génn ci li mu nekkoon waaye rek ba da cee mujjoon ñàkk bakkanam li auto li autopsie bi wone nag mooy kii di. ama dell dafa am traumatisme crânien maanaam gaañu gaañu bi ci biir bopp bi moo métti ba mu fa jaar rek euh, fat ci fàttali rek kii di ama dell ñu ngi ko jàppee woon fële ca Kaffrine euh, laata rek ñu koy defeere fële ca euh, police centrale ba Louga kii defoon bile ñaawteef nag ñu ngi koy toppee rek meurtre ak association de malfaiteurs. ñu àddu rek wax ci garab yi nga xam ne rek dañ koy jaay ci mbedd mi rawatina fële ca kër sëñ bi ci entretien boo xam ne rek amoon na ko fële ca Dakar ko Mbagnick Diop nekk euh, jëwrin bi nga xam ne rek moo jiitee lépp lu dem ci pharmacie rek ak garab yooyu daal dina xamle na rek ci fan yu néew rek dinañ wàcc foofu ci kër sëñ bi ngir tere rek jaay boobu nga xam ne ñu ngi koy jaay garab yooyu ndaxte nag teguwuñ ci yoon te dafay lor rek askan ginnaaw bi ñu àndee rek di xeex lépp luy injuste rek injustice fii ci Sénégal mouvement bi di Y'en a marre ak FRAPP France dégage daal génn rek ca plateforme ba ñu nekkoon muy ñoo lànk li waral bi mbir nag kii di Aliou Sané di coordonnateur FRAPP France dégage moo ko xam ne dañoo dem rek ba déggoo ñàkk seen diggante maanaam bu ñu waxee rek kii jaar fii kee jaar fee ñu dem rek ba déggoo bi nga xam ne ñu ngi ko doon sàkku ngir xeex bépp ci Sénégal bépp injustice rek amatul seen diggante moo waral rek kii di Y'en a marre ak France frappe dégagé daal di génn ci plateforme boobu ñu àddu rek dem ak ci mbirum yoon ki nga xam ne rek moo di Bouna Manel Fall nag moo jiite woon Sodaal dina porter plainte rek euh, Malal Talla di Fou Malade nag li waral mu def li mooy rek Malal Talla dafa daal di rek toog ca plateau jàkkaarloo accusé ko ne moom moo daal di sàcc rek 100 millions ci euh, bërëb ba nga xam ne rek fa la doon liggéey ba tax sax moo tax ñu dàq ko foofu daal dina ci boole nag groupe bi di Futurs Médias ndax dafa jàpp ne rek dañuy dooleel kii di Malal Talla ba tax na bu toogee ci plateau bi rek lu ko neex lay wax daal di dem ak yéen rek ca tàkk-tàkk ba amoon fële ca Ngajaga li ko waraloon nag mooy euh, Euh, gaz bi fa nekkoon moo tàkkoon euh, ndege ni démb nekk ñoo xam ne ne rek américains yi dal di nañu teew foofu ba dal di fay rek tàkk-tàkk ba amoon foofu waaye terewul rek euh, gaz ba mu ngi sotteeku ba léegi rek ci fàttali nag puits de gaz boobu ba mu tàkkee rek ñaari nit a jot nañ cee faatu muy gendarme bi nga xam ne rek mu ngi wuyoo ci Sakura Gaye ak canadien bi di Henry ginnaaw ba ñu wàccee fële rek ca parc de Diou ca jëwrin bi nga xam ne rek moo jiite wàllum alam bi ak directeur ba nga xam ne moo jiite boobule parc lañ fa nemmeeku rek mooy juróom ñaari téeméer ak juróom fukki picc yoo xam ne rek dañoo daal di faatu li waral bi le mbir nag kenn xamagu ko ba tax na nag jël nañ ay dogal ba ñi nga xam ne dañ doon dugg foofu di visiter daal nañ leen tere dajaloo ba nga xam ne dañu ko doon dajaloo foofu ngeen jëf mbokk téléspectateur Equivox TV di kontaan nekk ci wóolu bi ngeen ñu wóolu di jaajëfal tamit gomis mi nga xam ne rek moo nekkoon ci xaleera bi di leen jox rek dig daje ëllëg incha allah